Mimi Touré deful dara biir APR amul lenn lu baax loo xamante ni apporté na ko moo tax it man tey dama bëggoon xam lan nga mën a seedeel lu baax kii di Mimi Touré euh, durant sa carrière politique au sein de la coalition et aussi du parti xam nga man du ma wax nit kii loo xam ne nag Sénégal képp ku nga dugg xam ne ni am naa cohérence mënuma la wax ni Mimi mi liggéeyul dara APR boo doon xayma li Mimi Touré liggéey APR ak li mu am ci APR aussi loolu dafa jar a xayma ñu ñuy bokk affaire laa wax affaire ba mu daj Mame Diop vient vient d'être président d'une institution assemblée nationale mais avant Mame Diop y avait que Ousmane Tanor Dieng y avait que en dehors de Macky Sall président de la République y a que Mimi Touré seul qui Macky Sall d'abord en dehors d'Abdoul Mbaye a premier ministre jigéen ëpp ñu ci carrière xëy na ko sama daan def ñu dàq jàmm mais am na ñu ngi ci dàqul jàmm sama veut dire que li mu liggéey ak li mu récolté bokkul boo xoolee wis nañ ko wisaat nañ ko logiquement durant toute sa vie dina liggéey daa war a liggéeyal di indi alarba ba Sall ak alarba ba mais est-ce que xaaral wax la rek non waxuma la liggéeyul dara de waxuma la liggéeyul dara. Ah ah. te tamit mimi bi muy ñëw. ñëw fii ci biir Sénégal di jàppale Macky Sall jamono yooyu. c'était pas gratuit. Mm-hmm. da nga daan liggéey bu weer doyee ñu lay fay. dafa amoon cabinet moom man man xaw ma cabinet kat consultance la waaw man man man dama xam ne danaa liggéey ñu koy fay hmm. c'est différent de Farba moom qui avait son engagement di contribuer dans les activités du parti tout ah. travail mérite salaire non déedéet c'est pas dans l'arène loolu c'est dans le secteur ah privé c'est pas dans l'arène politique tout travail mérite salaire mais pas dans oui pas pas dans l'arène politique arène politique c'est l'engagement qui mérite une récompense alors euh, Mimi euh, Touré du ma la wax defu foofu dara de su ma ko waxee sénégale yi jéppi ma te xam naa ne yaa beaucoup téléspectateurs ñi may seetaan moo tax ma ne la duma wax def foofu dara mais bi muy ñëw jóge mais lu moom li mu la laaj lu baax lan nga ko mën a seedeel non c'est-à-dire que <laughs> li ma ko mën a seedeel lu baax man personnellement damay xalaataat bu baax. <laughs> jël na jël temps ñu jàll. que je suis trop juste avec moi-même. Uh-huh. te du ma du ma duñ ma poser question sénégalais damay déglu rek ñu pousser ma dans une situation ma wax loo xam ne gëmu.